sen mbokk Abdul Khadir mo len di nuyu bu baax di len ziyara di len dokkel bu baax ci wéru gamu wi ñu dugg di ji def sallallahu alayhi wa sallam di ñaan bis bu mag bi ñu dëgmal yàlla nañ ci yalla ya jamu te gep jamu yalla guñ ci def yalla nañ ko yalla nangul di gel ñu beeg ziar bi diko tek ci loxol serigne modou bi nga xamne moy ni daara ji waye tamit di yu baax sëriñ Mortala Njaay tey siir di ziar bu baax sëriñ Baye Fall yaa salaam mi ngi fekk bunt bi waaye di ziar bu baax tamit sëriñ Xaban Gay ak mbooleem jëwri yi nekk ci biir daara ji yëpp kulim juum waaye ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñépp di ziare mboolem soxna yi nekk ci biir daara ji ñëpp ah, ñu fas yéene indi tey tomb bu am solo boo xam ne du du génn gàmm waaye nag ñu tànn tey fas yéene waxtaanee inaayatu cheikh alxadim bi mawlid bi mawlidi nabii alayhi salaatu wasalaam sëñ tubaa yitte ju ji nga xam ne joxoon na ko gàmmu loolu incha allahu taala mooy nekk tombu tay bi su ko dañ koy séddale ci dañ ko séddale ci ay ci ci ay tomb tomb njëkk bi danañ danañ danañ danañ jukki dara ci sëñ bi ni nga xamee noonu la bëgge woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bëgg yonent bi ah, warugar la ci ab jullit ñaarit mooy sëriñ bi ni mu fonkee woon gàmmu ñetteel tam mooy sëriñ bi ni mu daan dundalee gàmmu tomb ci topp mooy sëriñ bi ni mu woon ci gàmmu tomb juróomeel bi mooy sëriñ bi li nga xamee ne wax na ne am na ko lenn ci li wax ne am na ko ci sababu dundal gum daan dundal gàmmu tomb bi ci mujj nag mooy njariñ yi nga xame ne ñoo nekk ci dundal gàmmu ak màggal bis bi incha allah kon ci poñ yooyu noonu ci lañu fas yéenee tënk waxtaanu tay wi su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom day jëmm joo xam ne mooy yërmande yàlla ci mbindeef yi di ki mujj ci mboolem yonent yi comme niñ ko xamee di kenn ki nga xam ne yàlla moo ko tànnal boppam mboolem meloy mat mboolem luy meloy taar boroom bi daal di ko koy takkaayal moo tax jullit bi balaa ak gëmoo mat il faut day jëmbat ci xolam bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax alquran ci boppam moo ñu ko njëkk sant ñun jaam ñi borom bi wax ci alquran ne annabiyu awla bil muminina min anfusihim yonente bi sallallahu alayhi wa yéen jullit ñi sañ-sañ bi ngeen am ci seen bopp bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am ci yéen moo ko ëpp moo tax sallallahu alayhi daan wax ne wax na ci xadis ne la yuuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain kenn ci yéen ak gëmam du mat lu dut daf ma gën a bëgg gën ma bëgg sax ci doomam ak ay way juram ak mboolem nit ñi nga xam kon salaa salaam moom moom ngay a bëgg ci mboolem doomu aadama yi soog a mën a mat moo tax borom xam-xam yi naka yëkk ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi ñëpp yeexal wane bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam gar la bu ñu warugar nag mooy loo xam ne kon ku ko bàyyi ngay am bakkaar ku mel ni Sëriñ Tuubaa moom nga xam ne kenn dabu ko ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam moom dafa wax ne bëgg yonente bi moom farata la Sëriñ Tuubaa moom farat la ko jàppee moo tax wax ne ci aw ne ya man lahul amru kun li waxmini abadan wasalli dëban ala man xubbuhu furida mu yàlla na nga dollee julli fàww ci ki nga xam ne bëgg ko farata la sëriñ bi yéemu ci waaye xam la ne ñàkk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy perte nga gu leer naññi mooy ki nga xam ne bëggut bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi nee na zahida fi najaati wal falaaxi man qalbuhu man qalbuhu lam yaxwi xubbul yi suñ tubaa nee na mucc ak texe dëdd na dëdd na wan gannaaw ki nga xam ne xolam bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekku ci waxaat feneen ne man lam yuhibba rasulallahi sayidana muhammadan sayida saadaati zalmadadi fa jaahilun garrahu bunyaanuhu wayara fi l barri wal baxri xizyaanan ma al badadi suñ tubaa nee na képp koo xam ne bëggut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sangub sang yi kooku réer la ku réer ku woru la muy géej gi muy jéeri ji fu mu ci mën a jot tamit gàcce képp lay tasel mooy ki nga xamee ne xolam ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekku ci sëriñ moom dafa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa ba nga xamee ne mbëggeel gi foo takk maanaam paase na ko sëriñ bi àgg na ci di misaal ni bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bëgg yonent bi sallallahu ak géej la nga demoon sëriñ Tuubaa dama cee lab sëriñ bi nee na xarixtu fi baxri mahabbati rasul wa artaji bihi rida wal xabul waxaat feneen bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkoon am ñoll la mu ñu naan ñoll mooy sàngara fekkoon sàngara suñu naan la nga ne dama cee naan ba màndi ñu naan nga ne kon dama cee naan ba màndi moo la sëriñ bi ne sakartu min xamri mahabbati nabi fala azaalu fi sana bi mutni bi nga xam ne sëriñ bi comme kon ni mu bëggee yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne àgg na ci di nuuraleeg boppam kañ daan tuddee mañ noonu layla nga xam ne ci nit ñu njëkk ña la woon dafa am ndaw su bëggoon lool su daan wax layla mbëggeel gi mel ci moom noo xam ne ci njëkk ña dafa am kuñ daan wax mañ noonu layla dofub layla layla jigéen la woon joo xam am benn waay joo waay joo xam da ko bëggoon bëggeel goo xam ne foo ko takk passé na ko ba taalif lu bëree bëree bëree bëri bëri ci moom ay xasaay yu bëree bëree bëri du jeex di waaye ndaw soos ngir bëggeel gum amoon ci moom sëriñ bi nag di nuuraleeg boppam ci ni bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak kooku ñu daan tuddee ma ñoonu lay laa wax ne ala rahmati l muhdaati lil xalqi jumlatan anisi ladi nga xam ne cofeel googu nga xam moom la sëriñ bi amoon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag am na ay mandarga yu fees yu koy wane ndax bu fekkee dang ne bëgg naa jëmm wala bëgg naa dara firnde yi wane ne bëgg nga loola war naa fés suñ tubaab nag ñu bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëri ay membre yu koy firndeel koy firndeel ba ci njëkk mooy sëriñ bi ni mu jëlee woon boppam ak i doomam ak li mu am lépp la ca gën a foor lépp mu def ko njot ci Yonent bi nga xam ne lu nara daal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek lu naa a dal yéen saa sam na na na teggi sallallahu alayhi te dal ko mu sëriñ bi wala mu dal ak njabootam mu dal lim am la gën a foor moo tax ñuy dégg bay di si yooyu noonu sëriñ bi naan mahad mahabati al muxtaara sayidana xubbil maganiya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadi lfidaau lahu abdan xadiman lahu mud kaana li sanada daane bëgg bëgg yéen saa sallam far na ci man bëgg ay koom-koomi àdduna far na ci man bëgg ak bëgg ak njaboot ak i doom sama deret ak sama njaboot samay ñooñ ak samay doom ak yépp def naa ko njot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye am na lu gën a yéem am na lu gën a yéeme loolu mooy sëriñ bi jël gim jël lexam bu tedd ba daal di wax ne salaasalaam lépp lu ko nar a gaañ jël naa sama lex bii daan lépp lu nar a lor yonent bi salaasalaam ci lu mel ni jiit lu mel ni dëkk ak lépp lu lore rek nara lor tànkam bu tedd ba na ko teggi te ñëw ci sama lefi man xarimu rasul daa daa daa daa daa daa di ma ciy lor te teggi fa tànk bi yonente bi sallallahu la mën a moom la bi ne xaddi wixaayatun li rijlil mujtaba min shawkatin wa ma yudaahi aqraba ñaareelu ci sëriñ bi sallallahu bëggee woon waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi ak nim mu leen wormaalee woon worma joo xam ne foo ko takk passé da nga xam ne wax na ci lu bëree bëree bëree bëree bëri sëñ bi nee na widaadi li rabbi wal muxafa wa xisbihi wa man xabbahum wallahu lii kaana bil afwi daan ne damaa bëgg saa boroom bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg kuréel ba ànd ak moom ak képp ku leen bëgg wax na ci yu bëree bëree bëree waaye bokk na ci nga xam bokk na ci liy feddali cofeel gi mu amoon ci waa kër yonent bi sallallahu ak saxaaba yi suñ bën bëri na lu mu daan tawasul lu mu daan ñaan ci daraje waa kër yonent bi sallallahu ak ci daraje saxaaba yi nga xam ne bayit di mu ngi ma dabul fawzayni habliya habliya fi hada du'a ijaba bil mustafa wal ali was saxaaba yow yàlla maa ngi lay ñaan nga nangul ma sama ñaan gi ci day yon ci dara yonent bi sallallahu alayhi ak waa kër yonent bi ak saxaaba ya di lim waa kër yonent bi ak njabootu boppam doom yi nabi sallallahu alayhi wasallam kenn par kenn ku ci ne mu lim kenn ko mu daldi mu daldi lim saw tur daldi ñaan ci sa daraja njëkkee ya ko ci taw yu yonente sallallahu alayhi wasallam ba ñu naan khair Al sëriñ bi ne qism fi al fil wa wali zawi din bi jaahil khasim yalla ma ngi ñaan cër ya ngay seddelé nga séddam ba ci gën defal mako ko defal ko wa diine ci daraje domam ji tudon khasim daan lépp lu naral lor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu mel ni jiit lu mel ni dëkk ak lépp luy lore rek nara lor tànkam bu tedd ba na ko teggi te ñëw ci sama lépp man xarimu rasul daa daa daa daa daa di ma ciy lor te teggi fa tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne mbëggeel kon foofu la mën a yem moom la sëriñ bi ne xaddi wixaayatun li rijlil muttaba min shawkatin wa ma yudaahi aqraba ñaareel bi ci man rek yoone suñ tubaab ni bëgg yonent bi sëriñ bi ni bëggee woon waa kër yonent bi sallallahu wa sallam ak saxaaba yi ak ni leen wormaale woon worma joo xam ne foo ko takk paase da ko nga xam ne wax na ci lu bëree bëree bëree bëree bëri sëriñ bi nee na widaadi li rabbi wal muxafa wa xisbihi wa man xabbahum wallahu lii kaana bil afi daa dama dama bëgg saa borom bëgg yonent bi sallallahu alayhi bëgg kuréel ba ànd ak moom képp ku leen bëgg yu bëree bëree bëree bëree bëri waaye bokk na ci nga xam bokk na ci liy feddali cofeel gi mu amoon ci waa kër yonent ak saxaaba yi sëñ ba na lu mu daan tawasul lu mu daan ñaan ci daraje waa kër yonent ak ci daraje saxaaba yi nga xam ne bayit yi mu ngi Matlabul Fawzayni habliya habliya fi hada du'a al bil mustafa wal ali saxaaba yow yàlla maa ngi lay ñaan nga nangul ma sama ñaan gi ci day yoon ci dara yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak wa kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ya di lim wa kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak njabotu bopam doom yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam kenn par kenn ku ci ne mu daadi lim kenn ko mu daal mu daal lim saw daadi ñaan ci sa dara daraja njëkkee ko ci taw yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba ñaan tudde al khasim sëriñ bi ne habli ya khayral qismi fil maqasimi wa li dawi dini bi jahil khasimi yalla ya ma ngi ñaan cër yi ngay séddale nga séddoo ba ca gën defal ma ko defal ko waa diine ci darajee doomam ji tuddoon xaas waxaat feneen ne walik shifan laylal hawal bahima bi xurmatil mahbubi ibrahima yàlla maa ngi maa ngi ñaan nga wuññil ma bànneex mi nga xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa lëndam ba mel ni guddi maa ngi ñaan nga wuññil ma nga wuññil ma sama bànneex ci ormay soppe ba nga xamee ne moo tuddoon ibrahim di doom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey waxaat ne walyasux xayra xalaali tayibi wa xayra jiraanin bi xaqi tayibi yàlla maa maa ngi ñaan lu lew la ci gën a lew nga wommatal ma ko la gën a lew gën a tey maa ngi ñaan yow saa borom nga wommat ko jox ma maa ngi ñaan tamit nga defal ma dëkkandoo yi gën ci dëkkandoo yi ci dara jey doo yonent bi salaa salaam tayib amoon doom ju góor ju tuddoon tayib moom yonent bi salaa salaam tànniwaat wa safini fi zahirin wa batini warxam biyal xalqa bi xaqi taahiri yàlla maa ngi ñaan nga sellal sama biir ak sama biti yërëm mbindee fii yépp te jaare ko ci man xaadimu rasul ci dara jey doom yonent bi salaa salaam ji tuddoon nga xam ne kooku kenn ci doomam yu góor yi waaye tamit noonu lañ ñaanee ba tey di def tawasul ci njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gu jigéen gi di lim seeni tur kenn par kenn daane waraqi nii tarxiyatan xafiya bi bintihi ruqiyata safiya yàlla maa ngi ñaan nga yéege ma yéege gu nëbbu ci dara ji doomum ju jigéen ju sell ji tuddoon ruqiya daane waqi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kaafiran bi zaynaba yàlla maa ngi ñaan nga fegal ma lori jàmbur bu góor lori lori ab jegeñaale akub jàmbur maa ngi ñaan ba tey nga fegal ma lori lori ab julit ak lori yéefar ci daraje doomu mi ju jigéen ci tuddoon Zeynab ba tey ba tey la wax noonu la waxaat ne wa umani bil xayri wa salaama bi maa ngi ñaan ngay jubale ci man fu mën a nekk yiw ak jàmm ba bis penc ci daraje doomam ju jigéen ci tuddoon Ummu Kulsuum waliyajut rabbi bi xusnil xaatima huna wa fi gadin bi jaahi fatima yàlla maa ngi ñaan nga may ma mujj gu rafet ak mujj gu rafet fii ci àdduna ak bu ëllëgee ci daraja doomu ji jigéen jëttoon fatima yàlla fi mu noonu la ko toppee nga nga gis ne bëggoon bi saa sallam àgg ci gis nga njaboot gi ñëpp da leen tudd góor ñi jigéen ñi kenn fu mu daan ñaan ci sa daraja ba de noonu la ko daan defee tamit ci bàyyi ndaw yi yaa rabbana bi xurmatil abbaasi wa hamzatin anik fi kulla baasi bi xurmati alxasani walxusayni judliya judliya fi daareeni bi nuurayni yàlla maa ngi ñaan ci darajay abbas ci ormay abbas abbas bàyyi bu ndaw loon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo maa ngi ñaan nga fegal ma bépp ay ci darajay ñaari sëtam ya te mooy xasan ak xam ne sët lañ ci yonent bi sallallahu alayhi bi sax doon ñaan ci seen daraja maa ngi ñaan nga defal ma ci ñaari kër yi muy àdduna ak àllaaxira leeruk àdduna ak leeruk àllaaxira bari tamit noonu la daan ñaane ci daraja saxaaba yi wa bi saxaabati suma al awliyaa maan wala aamiliina min al axbaari allahu yàlla maa ngi ñaan ci daraja saxaaba yëpp ak daraja wàllu yéeg ak mboolem fóore yi nga xam ne dañuy jëfe seen xam-xam ñëpp waaye tamit maa ngi ñaan ci daraja ñeenti ñi nga xam dañoo ràññeeku lool ci saxaaba yi wa bi siddiqi wa bil faaruqi suma bidin nuurayni zuma abi sibtayni yàllaahu yàlla maa ngi ñaan nga may ma ci darajay abou bakar Omar Osman ak Ali ñettel bi ci li wone sëriñ bi ni bëgg yoonu nabi sallallahu alayhi wasallam moy Sëriñ tuba ni bëggoon alquran mi nga xamé ni ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko wacc amna Sëriñ tuba dafa bëgg yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ba bëggaale alquran mi nga xamé ni ci sallallahu alayhi wasallam lañ ko wàcce moo tax xam sëriñ ni mu taqoon ak alquran ak ni mu quran ko daan seetantaleeg yépp lala bi day dugg ci ni bëggé won yoonu nabi sallallahu alayhi wasallam دغ نيو نيب ميروسي وو يا كتاب الكريم انت حبيبي وخليلي وكنت خبل طبيبي ام نحن فما عليك اثني يا كتاب ربي وانت لي خل وانت حبي ياو تيرب سا بروم بي دمالاي تاغ دا ياي سما خاريت دي سما سوبي وجهت وجهي بقران ارتله الى الكريم الذي خد يار بالظفر la ziltu ashkuruhu bil xifdi fi xale xaladi wa fi tadaburi bi tajwidi wa nazari nga xam ne yooyu yëpp day ne sëriñ bi ni nga xam ne noonu la bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi nga xam ne ni mu bëggee alquranul karim day dugg ci biir ni mu bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam te lu mu wax ci lu yaatoo yaato yaato yaatu loo xam ne xaataayu waxtu wi lu ñu may ñu mën a jukki yëpp moo tax dañ ci jukki lu na war a ngir barkeeloo ko ñeenteel bi ci liy wane sëriñ bi ni mu bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ni mu bëree woon lu mu daan julli ci moom ni mu woon lu daan julli ci moom ndax dañ naan ku bëgg dara fa man man ahabba shay'an aksara min zikri dañuy wax ne ku bëgg dara il faut nga bëri looy tudd loola nit ki li mu bëgg day bëri lu muy faral di waxtaane loola moo tax ñu ne ku bëgg dara rek il faut da ngay bëri looy tudd loola moo tax Sëriñ Tuubaa ni moo taxoon dafa bëri woon lu daan julli ci moom bëri waay boo xam ne foo ko takk paase na paase na ko suñu daan wax ne ribxi tilaawatu wasalaatu ala nabi wa ni sama bénéfice ci ab sama bénéfice sëriñ bi da daan wax sama bénéfice mooy quran ak julli ci ntoam rib wa kafihima sëriñ bi bokk na ci li nga xam da koo farataaloon ci boppam daa farataaloon ci boppam daawu tudd tur yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu dul da cee ak sëlmal ci moom moo tax at mi Sëriñ Tuubaa ñaari xaaj yenn weer yi da ci daan tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam yeneen juróom-benn weer yi ci des mu daan julli ci moom moo tax ngay dégg mu naan salaatu sitta bi matxi sitta taati batta ma ati sahi waxan na ko feneen wax ne li commencé muharram nga xam ne mooy weer weer weer wi njëkk ci atum jullit ci atum jullit ñi li tàmbalee muharram ba jumaada saaniya juróom benn weer yooyu noonu suñ tubaab ne dama dama warlu di ko tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen juróom benn weer yi ci des mooy li tàmbalee rajab ba ci zulxijja ma warlu di julli ci moom mara sëñ li jumaada saaniya من المحرم امتداها غانية قد التزمت صلوات من رجب لختم ذي الحجة سعيا ينتجب nga xam ne kon sëriñ bi noonu la daan séddalee at mi julli ci yonent bi salaa sallam ak tagg ko ma da sëriñ bi lim taalif ci julli ci yonent bi salaa sallam ak tagg ko moom kenn mënu koo lim mu ne su koo lim ci ngir ngir bëri waay mel ne mu xaadamatul xidma nga xam ne sëriñ bi ciy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañ am na bu mag am bu ndaw am na muxaddamatul xidma fi salaati ala nabii rahma am na bu ndaw am bu mag am na ba tey al muxaddamatu suxra an nasriya fi salaati wa taslim ala xayril bariya ba tey am na muxaddamatu suxra an nazmiya fi l xidmati li xayril bariya am na ba tey adurru samin fi salaati ala nabii al amin ba tey fatul gafaar fi salaati ala mahil awzaar lu mel ni fatul mukarrimul baaxil badia fi salaati ala al mukarramil badia nee na mafatixul bisri yooyu yëpp sëñ bi doo ko def ngir julli ci yonent bi sallallahu képp bokk na ci mandarga yi wane sëriñ bi ni bëgg yonent bi sallallahu mooy sëñ Tuubaa ni mu ko daan toppee nag doon toppee sallallahu ak topp sunnaam ndax euh, benn borom xam-xam bu mag bu ñu wax ibnu rajab alxanbali day wax ni képp ko am dafa wax ne bëgg na yàlla bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam tam bëggeel ga dëggu ci ab xolam kon il mu bëgg ci xolam li yàlla bëgg ak li yonent bi sallallahu bëgg bañ li yàlla bañ ak li yonent bi sallallahu bañ la yàlla gërëm ak li yonent bi sallallahu gërëm moom it da koy gërëm lay merloo borom bi di merloo yonent bi da koy merloo ku ne bëgg na yàlla bëgg na yonent bi sallallahu alayhi noonu la koy defee te nim koy defee nag mooy loolu ay jëfam ci wax moo koy wane man nit ko ay jëfam mooy wane ne bëgg na yàlla bëgg na yonent bi sallallahu waaye saa xam ne bëgg na yàlla bëgg na yonent bi saa sallam te ay jëfam wuuteeg wuuteeg wuuteeg waxam rek dañuy wax ne loolu nekkul mbëggeel gi tax nekkul mbëggeel gu dëggu moo tax benn waykat di wax naan man yaddaci ubba walam yu min hadiyihi fa safahatun wa huraaw falxubbu awalu chartihi wa furuudihi in kaana sidqan taatun wa wafaaw daani képp xam dafa woote ne bëgg na yonent bi saa sallam te njub ga salaa salaam nekku nekku ca neen ko ku desee di la maanaam xelam matut daan ne cofeel sart bi ci njëkk fekkee ne dëgg la il faut nit ki day topp kam bëgg moo tax sëriñ bi moom daan jëfe ndigal yonent bi salaa salaam ay tere moom daawu ko seen wala sëriñ bi ne aqsamtu billahi inni li nabi abadan xilun wa xibbun wa ma war naa ci yàlla ne man damay nekk ba faaw di yonent bi saa di lépp lu mu bañ laa bañ lépp lu mu bëgg moom laa bëgg waxam na feneen ba tey ne nawaytu kawniya abdullahi muntasilan li amri taarika nahyin xaysuma xutima mustamsikan bi rasulillahi sayidina muhammadin man mahal ahzana wal sëriñ bi ne dama fas yéene nekk jaamub yàlla buy jëfe ndigal di wattu ay tere waaye tamit di jàpp mooy mi nga xam ne mooy sang Muhammad mi nga xam moo moo nu faral ay njàqare nga xam ne sëriñ bi ni nga xamee ne noonu la ko noonu la daan noonu la ko daan toppee ba tey noonu la daan roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mboolem ay waxam ak ay mboolem ay jëfam xeroon lool ci topp sunna sore woon lool lépp luy nuru bi daal moo tax sëriñ bi ne banaytu taati bittibaai bi dikri wa sunnati wal ijmaai ahadtu rabbi ala al ibada bi sunnati al muxtaari xayri saada suñ tubaa ne dama saak topp yàlla dama ko tabax saak topp yàlla dama ko tabax ci alquranul karim ak sunna si yonent bi sallallahu ak li nga xam borom xam-xam yëpp dañ ciy dëppoo dama wóolarante yàlla ci jaamu ko te teg ko ci sunna si yonent bi sallallahu ngeen ci sang rawatina sëriñ bi yemut ci loolu rek waaye bi mu dikkee dafa taxaw temm ci leeral sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ko ak dundalaat ko gannaaw bi nga xam bi na mu ràppoon lool bu doon kër nga ne gent na sëriñ bi moo koy moo yeesalaat sunna si dundalaat ko nazafatuhu kulli min allahi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayinu ne sunna yonent bi sallallahu bu soobee saabonu dinaa ko leeral ko waxee woon defee ko noonu waxaan na feneen tamit baydu si woowu li Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahul gharra sunnatahul gharra wa inni ahmadu دع مدادي وأقلامي لخدمته إحياء سنته بالحكم والحكم waaye nag sëriñ bi bëgg bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam borom bi fayee ko ci ay may ay may yoo xam ne ak i ngëneel ak i dara yoo xam ne su ko takk doy na sëkk rek nee na bëgg ma bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam teral na ma xubbu nabiyi rasulillahi karramani sallallahu alayhi karimun jaadali bi adat wax ne ba tey kefeel gi ma am ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam fegal na ma bépp alkande xubbi lahu saadani an kulli mahlakatin kama bihin xaadali ma wadda man abada ba tey neen cofeel gi ma am ci yonent bi sallallahu alayhi defal na ma lu feeñ lu fees lu ñëpp teg seen bët ak loo xam ne ku dul man ump na la xubbi lahu jaada fi sirri ma alanin bima bada walladi an gayrihi statara kon sëriñ ni mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi yi ko doon wane dafa bari bëri waaye boo xam ne foo ko takk paase na ko ñaareel tomb mooy Serigne Touba ni mu ni fonkee woon gàmm ni fonkee woon guddi gi di guddi gàmm. kon tombu ñaareel mooy Serigne bi ni fonkee woon guddi gi guddi gàmm dafa fonkoon guddi gi fonkeel goo xam ne foo ko takk paase na ko ndax nee na guddi gàmm. dafa am mbóot mu ci nekk moo xam borom bi da koo nëbbu ndax nee na nëbbu gi mu ko nëbbu làq làq làq gi mu ko làq mbindee fi ñoŋal ko bañ bañ bañ koo xam loolu waru gaar la moo mu làq ju ko ñun mbindee fi waaye guddi gi saa suñ tubaab ne am na secret bu ci nekk boo xam ne borom bi da koo lëm li mawlidil muxtaari sirrun yaktumu id sawnuhu anil wara yun xatimu sëñ ba tey wane na wax na ne weeru gàmm muy weer ñu nekk moo féete kaw mboolem weer yi ndax mooy weer wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ jamono waxana na ba tey ne weeru gàmm mooy taaru weer yi shahru rasulillahi bahjatu shuhur wa ramadanu shahru itqin wa tuhur waxaat fee ne na rabiu rabiul awali shuhura bi mawlid lazi bada mashhura wax ne weeru gàmm yeneen weer yi ci des yépp weer wu ne suñu tubaab ne weeru gàmmu defal na la teraanga ngir leer gi nekk ci moom ak tedd nga gi nekk ci moom ak barke bi nekk ci moom farrax mawlidu nabi muharrama kama lahu kama lahu ula wal karama na weeru gàmmu bégal na weeru muharram muy weer weeru weeru tamxarit man laka mawlidu nabi safara busharatan xaalidatan lam tukfara suñ tuwaa nee ne weeru gàmmu moom may na weeru safar mbégte moo xam ne mbégte mu sax moo xam ne su ko weddeeti nga xam noonu la ko toppee moom sëriñ bi ñu toppoon day gudd waaye weer ne rek sëriñ wane ne weeru gàmmu am la defal sëriñ moom sëriñ bi moom teel naa dundal gàmmu lool ngir roy yonent bi sallallahu ndax man nañu gàmmu sëriñ sallallahu alayhi moom ci bopp da ko daan def ndax danaan daraan woor bisub altine biñ ko ko laaje mu daane zaaka yow mu tu fihi noonu ci laa gane jamono kon salaasana gi moom moo njëkk gàmm moo tax sëñ daan ko roy ci loolu moom fonkoon gàmm gi lool daan ko dundal sëriñ bi ana moom ku teel a ndax ci asas at ma nga xamee ne ci la yoonu murit sosu bi ma bi sëñ mor andasali làqoo ba ci déwén sa rek asas atum 1301 tambe won ak 1882 wala 1883 ci le serigne bi tambalé gam auto serigne bi ne ahaytu mawlidan nabi min asasi wan khadali fawqa <clears throat> al munafi hamsasi dani dundal na guddi gam dundal na guddi gam ci la tambalé gam moy ci atum asas ñettel tomb bi moy serigne bi nim ko dan dundalé ku na ne dundal guddi gamu ndax bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg loolu demen day firi cofeel gi nga xam ne ñun jullit ñi am nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day jaadu na mu koy ko ci anam xam ne day def ak ak sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam sant ci yàlla ak di ci jàng alquranul karim di ci joxe ñam di ci saraxe waaye tamit di ci jàng xasaayid yi nga xam ne dañ ciy takk yonent bi sallallahu wa sallam moo sa sëriñ bi wax ne mawliduhu muazzamu mubaarakun muxtaramu tanzimuhu yanxatimu ala zawi taxaddumi tanzimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisi muazzimi suñ tubaa nee na ah, màggal guddi gàmmu loolu lu am barke la luñ warmal la dundal ko ñi nga xam ne ñu jiitu wante su ko defee sëñ bi nee màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki, anam ak sunna moy ci anam gi nga xam mooy tax ñu man ci jariñu dañuy mat jëmee ñu aljanna day dolli sunu xewal ci kep ko xamne selal nako magal ko màggal ko te yàlla tax moo tax sëriñ bi wax nañ ne ni ko daan dundale mom moy nim ko daan dundale mom señ tuba mom ak taalibe yi moy jang alquran ak tuddu yalla ak beril luñ daan julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam ak jang lenn ci xasaayid yi nga xam ne sëriñ bi da ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mel ni muqaddamatul amdaax fi mazayal miftaax lu mel ni jazbul xuluub li alaamil xuyub lu mel ni mawaahibu naafi fi madaihi shaafi ak lu mel ni téeréb mawlidul mawlidul barzan ji wax nañ sëriñ bi ko noonu la ko daan dundalee moom muy jàng alquran tudd yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jàng leen ci xasaayid yi nga xam ne sëriñ bi da ci daan tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu sëriñ moom noonu la ko daan dundalee moom ak talibi yi nekkoon ak moom bari sëriñ bi tamit wax nañu daan na ko màggal ci daan waar talibi di leen labiré di leen digal aw yiw di leen tere ab safaan tamit di leen teral di leen wax nañu sax daan jël parfum laj ko lañ daan ko wis mbooloo mi waaye tamit wax nañu daan jël ñam yi daan ko séddalee ca loxol boppam lu tedd la ak naan yi wax nañ ne loo ko mos a laaj bu weeru gàmbu dikkee rek moom yitte joo mos am bu weeru gàmbu dikkee moom boo ko waxee da koy faj ni nga xam ne daawut gàntu jën yitte sa waaye rawatina weeru gàmmu na teeru moo tax nañ am mag ñoo xam dañ daan dajale seen yitte yépp bàyyi weeru jot ñu wax ko ndax luñ ko wax moom da koy daal di saafara su ko tomb ñeenteel bi ci topp mooy sëriñ bi ni nga xam ne noonu la soññee noonu la noonu la soññ su ko defee tomb bi ci mooy sëriñ bi li nga xam noonu noonu noonu noonu la noonu la soññee ñun taalibe yi ci ñuy farlu di dundal gàmmu ndax sëriñ bi yow dafa dafa soññ mboolem taalibe yépp ci farlu ci dundal guddi gi di guddi gàmmu ñaax leen leeral ne euh, dundal guddi gi warugar la ci bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen ndax xeewal ak i teraanga lépp xeewal lépp teraanga dafa nekk ci biir guddi gii wala sëriñ bi ne mawliduhu muazamu mubaarakun muxtaramu taazimuhu yanxatimu ala dawi taqaddumi ku la ñu waxoon ci ginnaaw waaye sax sëriñ bi yemutoon ci guddi gàmm rek waaye mën nañ ne weer wépp sëriñ bi da sëriñ bi da ko jàppoon gàmm wépp da ko daan dundal moom sëriñ bi da ko daan dundal moom sëriñ bi weer wépp dégg nañ buñ gisee sëriñ bi am na bayit muy wax ne daani ila ixyaai za shahri kawnuhu li xayril wara zarfan xawa kulla suudadi nga xam ne moom weer wépp da ko moom sëriñ bi bu weer yi mosaana tër mu am mbégte moo xam ne moom foog takk paase na nga xam ne ko njëkk wax ne weeru gàmmu feeñ na moom bis boobu sa affaire dana baax bis boobu yow sa mbir dana baax ndax dan lay jox ay may may yoo xam ne foo ko takk paase na ko may yoo xam ne foo ko takk paase na ko waaye bu weer wi daan ñëw tamit dañu daan def ay xasaayit daan ko daan ko teeroo weer wi naan raxabtu tanziman bi chahril muntaxa alayhi taslima mu nii lil irtixaa maa ngi lay dalal jàmm di la màggal ya weeru ya weeru mun ya weeru ngën ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam nan ko basharta ya rabi'u nan ko basharta ya rabi'u kull ladhi tukha ya zarfa nurin wa istifa'in wa intikha ya wéru gam bégal nga képp ku ragal yàlla yaay ndabul leer di ndabul sell yaa man xabaana billadi lam yuxlaxa nadiruhu wa abadan lan yuxlaxa yaa ñu may ki nga xam ne ndendam borom bi musu ko bind ca la wessu won du ama tamit li ñew borom bi musta sak ku melni ndendul yunus sallallahu ci la weyon ta borom bi dootul sak ndendul sallallahu alayhi wasallam ci li ñew wala señ bi ne ya bil ladhi lam yukhlaqa nadhiruhu wa abadan lan yukhlaqa waye bu yori daan taggo bu yori daan deman bay demane bay jeex señ bi señ bi ci daan amu metit jaam lu ko lu ko nakari lol ndax wéru sangam bi nga xam mi ngi bëgg taggo moo tax sëriñ ko rabixtu fiika yaa rabia al awali sir rachidan li dil baqaa naa ci yow ya weeru gàmm yaa xayra shahrin jaabi xayri mursali mubashiran maxawta anni kasali ya weeru yow ngën ji weer muy weeru gàmm yi mi nga xam ne yaa ñu indil ngën ji yonant ngir bégalee ñu ko far nga ci man ak tayal إلا يخط مخجلا للعسل من خير رب خير باخ مرسل يويرو غامو ومتال غما لو خامني نيهاي بي غاتيالنا لم لك ثناء يا ربيع الاولي ليشهد بخير بخير عند باخ اولي كون يا ويرو gàmmu maa ngi lay tagg سيرل ba nga séeréel ma aw su ko defee tomb bi ci topp mooy sëriñ bi li nga xam ne wax ci li wax ne am na ko ci sababu dundal gum daan dundal gàmm ndax loolu sax day day géej goo ne mënee su koo lim. lenn ci lenn ci may yi nga xamee ne ci mawaahibu laduniya ak al minahul muhammadiya nga sëriñ bi nee na am na ko ci sababu dundal gum daan dundal gàmm muy loo xam ne mënee su koo lim ci bëriwaay kaa dañ ciy jukki yenn bëri rek ngir barkeeloo ko. sëriñ bi nee na rafaani xubbu rabii al awali rafaan rafaan xamaani an zawi taxawuli sëriñ Tuubaa nee na bëgg bëgg weeru gàmm yëkkati na ma yëkkati goo xam ne nga aar na ma ci ñi nga xam ne dañu pelamtu nee na ba tey barakatul mawlidi kulli aslahat fi aajilin wa aajilin wa rabaxat nee na barkeb gàmm defar na sama lépp fii ci àdduna ak ëllëg bis sama lépp tonaw na ci barkeb gàmm nee na ba tey addanil baaxi min ahli badri bi mawlidil muxtaari alil xadri saa boroom lim na ma ci waa ahlu badar ci gàmmu ci mawlid mi ci gàmmu gàmmu gi def saa mi nga xam ne mooy ay ji kawe ji ay daraja newaat yaquudu li chahr rabi al awali wa ramadaanu mufximan kullu wali na weeru gàmm ak weeru koor defoon nañ man suñ ci waa loo xam ne weedam loona bépp waliyu waxaat feneen na karramani mawlidu man lam yulada naziruhu wa abadan lan yulada weeru gàmm weer yi nga xam ne ci la salaa salaam feeñ jamono nga xam ne mësee suta jur ku mel ni moom suñu tuwaa ne nit ku mel ni jigéen mosta jur ndendu yonent bi salaa ca la wéy ba tey li ñëw tamit jigéen dootu ci jur ndendu yonent bi salaa guddi googu na nga xam ne ci la gënee jamono teral na muy guddi gàmm waxaat ne mahal ana a wal aza wal kamada mawlid ba tey di wax yenn ci may yi nga xamee ne am na ko ci sababu dundal gum daan dundal gàmmu wax ne mahal wal aza wal kamada mawlidu afdalil baraya ahmada Sëriñ Tuubaa nee na ci man coono ak lor ak njàqare waxal ba tey ne guddi gàmmu jox na jubale na jëme ci man loo xam ne neexaay bi gàcceel na ca kallem wajjaha lii mawlidu xayri mursali xalaawatan tuxjilu taamal asali wax ne gàmm guddi gàmm ci boppam womman na jox ma loo xam ne kawe na njort yépp xam ne kawe na lépp njort lii xaada mawlidu nabil mufaddali maa faaxa kullu zanni tafadduli wax ne ba tey saa boroom jariñ na ma njariñ lu fees ci darajey guddi gàmmu gii njariñ lu ànd lu ànd leen jàqare nag nafa anin lu am nafa anin yi bi mawlidil muxtaar yi duna wajali wax ne barkeb gàmmu womm na saa lépp jëme aljanna saa lépp lu néew barkeb gàmmu bëril na ko barakatul mawlidi xaadat kulli ilal jinaani kasarat kasarat lii xulli kon tombu eh, tombu bi ci muju moy na ngeene li nek ci dundal guddi gi di guddi gam am na sëriñ bi ci bopam ci jessul khulub leral na njeriñu ad njëriñi àdduna ak àllaaxira yi nga xamne eh, borom bi def nako ci dundal guddi gi di guddi gam ben ci ki ko teewe wala bokk ki ci joxe ab moom wala bokk ki ci joxe aw ñam sëriñ bi wax na jazbul xulóob ne fa man yuazim mawlida sëriñ bi wax na ne fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gada faxtarimal wa azimi sëriñ Tuubaa ne képp ko xam ne màggal na ah, guddi gàmmu guddi gàmmu dund saa mi buntum jub boo léegi na ne kenn du ko xisaab moo tax ma ne ko nanga ko warmal te màggal ko waxaan ne fa man yuazim mawlida xayril baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi xayri wahami suñu tubaab ne képp koo xam ne màggal na guddi gàmmu màggal na guddi juddu ngën ji mindeef mi ahmad te ahmad nee mel ni na koo xam ne dafa faatu ci toolu xare mel ni ko fekke woon xare badar xam ne xare noonu mën nañ ne gannaaw yàlla ci lislam taxawee mel ni fekkee woon xare bu ba noppi xeex ca ba faatu te kenn ku ne xam ne nag képp moom dafa dafa dee ci toolub xare ngir taxawal diine lislaam kooku aljana na jëm direct suñu wax leen képp koo xam ne fekkee na képp koo xam ne na la gu gi mel na ni ku fekke woon xare wu di xare badar wax ne fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al lmusharrafi maalam bi ghayri sarafi wala bi xadri dirhami fa innahu ka man xadar yowma xunaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar wara al mufahimi suñ tubaab nit ki moom dépensé na ci guddi gàmmu alalam dépensé gu ànd ak yàq doonte benn dërëm képp la nee ko mel na ko teewoon ku fekkee woon xareb xunayn ba noppi ànd ak yéen a la muñ ànd ak moom dimbale ko ci xare boobee mel na ba tey fekkee na xareb badar wax na ba tey ne képp koo xam ne màggal na guddi guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi wutu ngib boo léegi kenn du ko xisaab ci xisaabukaay ba nga xam ne dañ fa woo nit du xam lu muy wax day wedam du xam lu muy wax suñu ci wax ne ku dundal guddi gi nag te yàlla tax kooku du jaar ca loole fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gada inda xisaabi mufhimi suñu ci wax ne képp ko xam teewee na ko rek nee na képp koo xam ne teewee na ko di ko màggal di ci bégle ci lu saf suukar wala ndawal nee na kooku dana am mbégte moo xam day taxoog moom te du taseeg benn lor bis ba nga xamee ne ci la xeet yépp di tase fa kullu man qad xadara mawlida afdalil wara muazima mubashira bi sukkarin aw laxami fa innahu qad zafira bima yudimu bushara wala yulaaxi darara yama ijtimaail umami suñ tuwaa képp koo xam ne waajal na aw ñam ci guddi gàmmu jox ko ña doon jaan guddi ga ngir jubloo màggal neen kooku ña amoon yitte ju kawe yi wañ doon sàkku moom jël na ko denc am na am na yiw tool noona denc famanta aman hëya liman law xadd xaraa mu bajjilan faxaba a xayraati ahlil himami suñu wax képp ko xam ne da cee jàng dara ku jàng mawlit mawlit nag dañu wax ne mooy xasaayit yi nga xam ne sëriñ bi ci tagg yontu sax lu mel ni jës bu mawa jës bu mawaahib ak lu mel ni muxaddimaat mel ni barzan ji yooyu ñu tuddee mawlit su tubaab ku jàng yooyu nag walla kuy jàng yooyu noonu daal di koy daal di tëfli ci dara ngi bëgg loola barkeel incha allah dana gis loola mu dolliku wa man ala cheyin xara mawlida sayidil wara tabarrukan fa sayara nu mu waxoo bil fad rami nee ba tey ku ku jàng mawlid mooy lu mel ni jës bu mooy bu ku ko jàng ci am ndox ko jàng daal di ko tëfli ci am ndox suñu tubaab ne ku naan ca ndox moomee tees na ko fegal pexim iblis ku naan ci ndox moomee dana leeral ab xolam doona dundal ab xolam dana ko aar ci ak texee di wa in ala ma in xuri mawlidu xayri lbashari fa shurbe bilmutahari yakufu kayda almurgami yunawiru lxalba sharab min dalika alma bilmujab walxalba yuxyi duna aab wa an shaqain yaxtami Sëñ Tuubaa nee dundal Sëñ Tuubaa nee na dundal guddi gàmm guddi ngeen ji mi def day aar njaboot day aar kër day saafara xool tamit ixyaau mawlidil bashir yaxmin ayaala wa duyur fii shifaun li sudur li kulli haadin yantami su ko defee ah, kon loolu noonu as su as ko su ndaw la si lu aju won ci gam ko serigne bi fonké won ko dan dundalé yooyu yépp ben bu ne jaar nañ ci ab teunk ko xna ñoo ngi taxalu fofu nonu ñaan yàlla nañu borom bi defal dig ak topp lepp lu wax lepp lu ci te yàlla nañ ko borom bi jéggal lepp lu ci lepp lu ci njariñ nañ ko ñëpp di ñaan bis bu màgg bi ñu dëgmal al nañ ko yàgga teewe déwén yu bëree bare bare bëree te lépp luñ ci def rek yàlla nañu ko yàlla nangul denc ñu ko fu yàq yëgut te ñun ñëpp borom bi mottali ñun ñëpp suñu yéene ci daara ji te lépp luñ ci yëngatu yàlla nañ ci dajee ngërëmal sëriñ bi waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu